salaamaaleykum mbokku internet Dakar Instant ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey nag ñu ngi fi nga xamante ne ni moo di Pikine euh, mu nekk benn tiis bu metti loolu wàcc ci ki nga xamante ne nii moo di Papa Boy Djiné di borom kër Ndeye Gueye mu ñàkk waajuram bu góor ñu di ko ñaanal yàlla suñu borom xaare ko àjjana jéggal ko ay bakkaaram waajur nekk lu cëslaay ci doom kon ku ko ñàkk rek xam nga ne lu metti loolu la comme ni ko Lac de waxee sànq. waaye nag ñu di ko ñaanal yàlla suñu borom jégal ko ay bakaram te ko ci àjjana yi gën a kawe àddunaa ni mel métit ak bànneex ñoo ànd kon nag duñu def lu dul di ko bokk ak moom tiis bi di ko ko jaale di ko jaale ndéegi mi di soxnaam di ko jaale ay mbokkam di ko jaale ñëpp jërë ngeen jëf waaw waaw sigi sen seen wàll di ko sama mag ak suñu dëkkandoo yi di ñaanal sama papa yàlla xaree ko àjjana te yeexeñu saraxam yàgg suñu loxo waaw waaw moom moom doo mën a wax si moom ndax fu ma féete moo taxoon dama koy ñaanal rek yàlla xare ko àjjana tey xëy allah waaw xawoon tawat bi xawoon na tawat tuuti rek mais yàlla defoon na si jàmm ba affaire yi bàyyi woon na normal eh. waaw xanaa rek di leen santaat di leen gërëm bu baax rawatina autorités yi nga xam ne ñoo fi ñëw si mel ne suñu maire bi monsieur le maire bëri ba ak imaamu jàq ak suma xarit yeeg mbokku mbari yeeg ak ñi mën a ñëw ak ñi ñëwul ñëpp sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp di ko ñaanal yàlla xaree ko àjjana te yeexuñu ci barki yonent bi. loolu moo waral ñu bëgg a joxal Dias ñu ngi lay fay. Euh, tiis bu metti bi nga xamante ne wàcc na ci Papa Boy Djiné naka ngeen ko dundee. waaw dañuy wax inna lillahi wa yi ilayhi raji'un rek di ñaanal ki dem yàlla xaare ko àjjana wax papa suñu nit la su ñàkkee waajuram day mel ni ñu ñoo ñàkk suñu waajur lu fi des moom mooy ñu koy ñaanal rek yàlla mi nga xamante moo yor njéggal yàlla na ko yàlla jéggal xaare ko àjjana yi kawee ci barki Seydina Mohamed ndax papa suñu la bokk su amee lu ko naqari ñun am nañ ñu ko lu ñu naqari di ko ñaan yàlla yàlla defal ko yërmande ak njéggal ci barki Seydina Mohamed Wow, di ko naqaru rek comme papa parce que papa sunu papa la te pa bi sunu papa la woon eh, même bu la gisu si kër sax faa mu woo naan la lu xew ak yooyu vraiment rek moo tax eh, ñu ngi koy ñaanal fi mu jëm gënal ko fu mu jógee waaw di ko masalu baax a baax parce papa suñu raq la kon tiis bi bu dalee ci rek dañ koy ñëw bokk ak moom mais na bëgg mu indiwaat xelam ci rek parce que rek moom moo sañ lii barki démb boo njaay laa ñàkk sama waajur bu kon donc lii bu dalee ci kawam rek na doomu ko teg yàlla moo ko teg di ko ñaanal yàlla suñ papa ji fi jógee nii yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana yàlla jéggal koy bakkaaram ci barke Seydina Mohamed maa ngi koy mas lu baax métti na ndax ñàkk wajur beneen affaire la waaw ku ko xamul rek dafa fekk na ñàkk goo waajur waaye maa ngi koy mas lu baax di ko xam mu muñ di ko jaale kër gi yëpp di ko jaale ñëpp ci barke tiis bi nga xamante ne wàcc na ci kaw Papa Boy Djiné mu ñàkk waajuram bu góor naka ngeen koy dundee. ah ñoo ngi koy bokk ak moom naqar geeg tiis gi ah naan inna lillahi wa inna ilayhi sunu baay bu baaxoon la baay bu yërëm njaboot baay bu mën a jubóole moroom nitam waaw papa nag ñoo ngi koy jaale sunu waajur bi ñu bokk ñoo bokk naqar gi ñoo bokk tiis gi di ñaan sunu baay ji nag mu xeppee àjjana yi gën a kawe si barke yonent bi waaw man ci alwaala maa ngi koy jaale bu baax Situ tour wa ikiri walo ak ak dëkkandoo gi bah muy waju bax de ko am yar de ko am teggin ñi ngi ñaan suñu suñu baaji suñu borom yërëm ko ci àjjana yi gëna a kawe barke yonent bi ah baay bas kooku suñu papa la parce que mak papa bo jinne bañ nekké xalé ba léegi ñoy and pa bi mo ñu yar ñoo ci lamb maak moom pa bi di xama di bokk ak ñun témé dañuy juggé entraînement ñew sax mu yëkëti lu mu yor nañu sombi leen wala def leen ni ba ni ñu toll ni kon xama tay ji li ñun ñëpp papa ñaakul ñun ñëpp a bàyyi ba suñu papa xam mais yàlla moom bu bëggee ku bëgg da ngay ñàkk waaw dañ koy ñaanal fu mu tëdd yàlla na ko gënal fii mu jóge te man gëm naa ne xolam dina ko warlu fu mu ne man xam naa loolu parce que uufoon nañu ñun ñëpp waaw bool na lépp lu mu am bokk ak ñun waaw ma koy ñaanal fee mu nekk yàlla na suuf woyof si kawam yàlla na ko Seydina Muhammad teeru yàlla na ko alxuraan teeru xam nga waaw te bañ koo fàtte si ñaan yi te xam ne guddeex bëccëg suba ak ngoon heure bu ñu jullee ñu ngi koy ñaanal waaw kooku suñu papa la suñu lépp la waaw affaire yi démb bi ñu ko yëgee ah ñëpp la bett parce que du papa yi papa kese Baye Bass suñu Baye Bass la ñëpp di ko ñaanal fi mu jëm xam gënal ko fi mu jógee benn kàddu rek boo xamante ni ñëpp moom lañ jàpp lim lay wax chaque jour li nga nekk gëm ci gëm ko chaque jour man kàddu boobu laa xam ne moom mooy gën a marqué ci kàddoom yëpp xam nga di ko jaale papa di ko wax mu muñ moom mooy góor fi mu toll nii na taxaw taxawaayu papaam yan bi yàlla teg ci loxo. di ñaanal Baye Bass bu baax yàlla yërëm ko te xare ko aljana. lan nga ñu comme ni ko mbokk jullit yëpp waxee paa bu jullit la woon paa bu mënoon yor ay njabootam la woon paa bu gëm gëmoon boppam la fonkoon liggéeyam te ji naqar bu ñu am ñëpp ñoo ko bokk papa suñu xarit la suñu doomu nday la kon te ji naqar bu ko amee ñu ñëpp ko am di kay ñaanal fu mu jëm. yàlla na ko gënal fu mu jógee. oui maa ngi lay euh, ñu bëggoon a xam teewaay bi fii ak euh, nga seqee Papa booy Djiné ñu. bon suy teewaay fii euh, mooy teewaay ñëpp rek parce que naxar lañu am suñu papa moo wàññeeku suñu papa bi nga xam ne moo ñu jur yar ñu nekk papay Papa Boy Djiné nekk Goronde Gueye aussi ak Aïda surtout. ñooñu dañoo nekk wax dëgg yàlla sumay sumay xarit euh, même bu dul woon ñooñu sax euh, góor gi suñu papa la donc laaj na bu bu bu nelawee ñu taxaw ko donc loolu kese boñ fi indi hmm. jërëjëf naka ngeen nekkee woon ak ki nga xamante ni nii moo di euh, papa yi ki fi wàññi ki fi jógee en tout cas góor gu baax la woon ñun fi lañ juddoo fi lañu màggee xam nañ ci dara leneen lu ci ëpp solo mooy li imaam bi wax sànq dégg imaam bi def na ñaari témoignage ba ñett yoo xam ne ay ndimbal la yoo xam ne daf ko doon def si jàkk yooyu te je pense que jullit bu taxawee ba ñu lay seede si jàkk bi ngay jullee rek euh, ndam la donc loolu benn la beneen bi dëkkandoo yi fii wax dëgg yàlla ñëpp ko sant ñëpp ko gërëm parce que ku baax la woon fi mu nekkoon tamit di fa liggéey tamit ñooñ tamit wone nañ ko ku baax la woon donc ñun dañuy am nañ yaakaar ci moo loolu bu baax te xam nañ incha allah yàlla dina ko jégal te puis dina ko yóbbu fi nga xam ne euh, moom moo gën ci. waajur nekk cëslaay ci doom mu bàyyi fi ay njaboot lan nga leen di dénk mooy tout tànk yi mu fi bàyyi. bon ñu góorgóorlu rek roy seen baay parce que kenn yorul kenn yàlla moo yor lépp comme que seen baay am na fi mu leen tegoon yar leen ba ñu egg foofu macha allah am naa yaakaar de ñi fi nekk mën nañu toppatoo xale yi fi nekk. lépp nag ci loxo yàlla la te yàlla moom moo yor lépp yàlla leen yàlla jàppale yàlla suturaal leen yàlla sàmm leen ba nga xam ne eh, duñu xalaat mukk papa waajur nekk loo xamante ni dafa am solo lool ci ay doom kon koo xamante ne ni ñàkk nga ko duñ def lu dul ñaanal la yàlla may la xolu muñ may la xolu muñ boo xamante ni di ngeen mën a dékku mbir mi dégg ngeen di nga xamante ni noonu la ko papa booy jinne waxee xolam dafa fees ndax boo déggee ni muy waxee rek xam ne nekkoon na xaritam lool waaye duñ def lu dul ñaanal ko yàlla suñu borom tas ko ci seen barke daal di koy xaare ci àjjana ya gën a kawe ndax doom loolu rek la mënal waajuram mu génn àdduna mu ñaanal ko loolu rek la doom mënal waajuram ñu ngi koy ñaanal nag moom mi nga xamante ni moo fi jógee yàlla xaare ko ci àjjana ya. instant rek yaa ma gën a xam. man xaw ma ci kaw lañ jógee. man dama jég gisaay rek gisleen ba pare foo tourné Dakar instant ngay gis. mais loolu ëpp na Dakar instant ca kaw ca ah, gis naa seen caméra bi ni mu timmi xam naa ne bëri na doole trop ba mënuma xool bu baax damay pis pis di pàcc pàccal nit dama leen di suivre si page seen page YouTube daal. waa Dakar instant moom boo xoolee ñoom seen tur rek wane lool ndax chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire loo wax ci Dakar instant.

information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. loo wax ci Dakar instant. Dakar instant na fi instant. Dakar boo yeewoo moom laay seetaan. boo tëddee. moom laay seetaan. Instagram. Twitter. moom Imo. Dakar instant. Dakar instant à tout